برهام باء وراء ألف ثم ها ميم فيض تيجان جخن نينان الله di nuyu tamit nga xam ne ñoo am mbégte ak bànneex di seetaan Alfayda euh, Tijaaniya jamono bu nekk euh, tey ñu waroon jàngat ak yéen ñi nga xam ne ñu ko baaxoon ci émission yi passé mi koor gi waaw te na biir Ramadan ñuy weeru koor gi ak li nga xam ne mooy ak euh, na yi war mu xam yàqu koor yàqu koor nag mën naa am nga am a fay yem ci wala nga war fay ba pare kafaara tegge ci fay kese moom mooy bis yi nga xam ne nii moom nga yàq moom ngay wooraat beneen jamono su fekkee kafaara nag dangay woor loola ba mu jeex nga doo def beneen benn bopp mu ci tegloo mu doog a mën a fay li nga xam moom nga def alquran ne fa iddatun min ayyaamin uxar maanaam xam ne weeru koor dafa ñëw mu war a woor ci biir weer wi am na loo ci def loo xam ne nii mën na ko tere woor su boobaa moom koor bi du nekk farataam kañ lay nekk farataam mooy yeneen fan léegi nag loolu nañ ci jëlaale um, ñi nga xam ne ni dañoo dagg ci duwel bi ba léegi bis boobu noonu ñu amoon kon war a fayaat ci ay Buxaari lay doon suñ koy fayaat nag am na ñoo xam ne dañuy fay rek ci waaye am ñoo xam ne dañ koy taal ci dañuy dagg rek euh, dañuy day ba pare borom moo war a fay gis bi ñuy jàng woor waxoon ne moom mooy bàyyi lépp loo xam ne ni dafay waral euh, woor gu gargalu fay bañ bis loolu yéen mooy bàyyi lekk ak naan ak lépp loo xam ne daa ko loo xam ne bànneex bu jëm ci biir la ak bànneex bu jëm ci biir wala bànneex bu jëm ci pëy ñu waxoon la moom nga bàyyi buñ ko jàppee rek na kon lépp loo xam waroon na yam ak li tax mu war a nekk bopp ba pare kon nañ jàpp ne itam yéen a lu mu wax rek moom mooy waxoon ne mooy tax koor gi nekk koor bépp ji manqué rek koor yàqu na léegi nag manqué ñu nag dañuy seet ni manqué ndax borom moo ci julli bi ngay def wala boog dafa demoon wala boog njuumte la woon ci moom wala boog dañ koo forcé woon mu def ko wala nga xam ne nag coore boppam demee ci Shaafi'i yi lekk naan su na ci lekk naan jàll moom soo jàngale leen xadis ku lekk mbaamu naan ci dagg googu dagg na mottali kooram te xam comme yàlla moo layal rek léegi mooy tey mu ci continuer li nga xam ne moom mooy des ci bés ba te jàpp ne maanaam am na koor loolu lañ jàngal beneen xadis bi wax ne isa wala sallam ne inna allaha wadaa an ummati wala tajawaza an ummati ngir niñ koy riwaaya alxataa wa nisyaan wa masuruhu alayhi njuumte ak fàtte ak lu ñu leen forcé yàlla leen koy jéggal wala leen ko kon ñu ne ki lekk fàtte mbaa mu naan fàtte wala ju maam mu naan juum su boobaa kooku mooy yàlla moo ko jéggal na ko loola ñu sukk ci wax jooju ne kon maanaam kooko fay waru wax tamit lépp loo xam dafa egg ci biir ñaareel jaar ci biir dugg ci biir bi jaar ci nga xam mooy manafis mooy ñu ooyee bët wala bakkan wala gémmiñ yi ni mel da xam ne jamono yi sax ñuy jàngal aju ci wàllu xel boobu yokk na yàlla nañu ci musa jëlee ko ci àddina bi yëpp mu jëlee ci ci réew julli ñi rawatina àddina bi yëpp ndax fa mu tàmbalee woon nekkutoon réew julli ñi teg ñoom xaj ba jamono nii mën nañoo ziara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën a yéeg yàlla ba te néeg yàlla yi nga xam ne moo leen jege sax dañ ko fag ba mënatuñ faa yéeg tëj na tamit aéroport yeeg yeeg frontière teer yëpp nga xam ni bus dem ak dikk avion wàccutul fenn bato wàccutul fenn te yooyu yëpp lu indi rek mooy jàngoro ji nii kon mooy ne dañu doon jëm egsi fii nii olof yi dañu wax ay tànk yaa ngi dégg rek moo tax yàlla na buñ ko déggati sax far dafa jóge ak jàmm dem jàmm te bu mu ñëwti nit ju yàlla na yàlla yërëm leen ñi nga xam ne ni ñoom la dal yàlla yàlla saafara leen ñim dalut yàlla na yàlla musal leen ci yàlla man ko yàlla ko def te jëlee ko fi ci barke li indi rek mooy dañoo wax ne bokk na ci yu koy joxe nag yi muy wàllee mooy gémmiñ gi wala bakkan bi wala bët yi ndax bi jaar dugg ci ñuy noyyee ñu ne kon lépp jaaruwaay yooyu ndox suufaay ndoxal buñ def wàcc ba ci biir dem jàll wala bokk ndox mu nit ki doon sorondiku wala mu ci bakkanam daal di jàll wala dafa ma xew moom mooy jaar na ci bën bën xam ne moom la am ci xar kanamam bu bokk gémmiñam waaye yegg na ci biir ba ñu ne su boobaa kool googu yàqu na waaye borom du ko fay même su ko tayee ñoom lañ jàng beneen bi moom mooy waccu wocc moom mooy ñam nit lekkoon mu ne ci biir ba pare indiwaat ci gémmiñam jamono jooju muy génn ñu ne bu néewee mbaam mu bëri yëpp su boobaa maanaam ñoom nee nañ kooku ah, kooram yàqu na dina fay waaye du kafaara lañu wax xadis sallallahu alayhi wa sallam ne ko comme na ni wàccu moo ko not boppam kooku dara ko wala sa ci waaye ki nga xam ne nii nag maanaam moo loo jëf maanaam moo jël baaraam du ko ci gémmiñ ba mu génne li nga xam ne nii mooy euh, ñamu nekkoon ci biiram kooku nee na kooram day yàq ñoom ñu ne dana fay yem ci waaye du la faat bari moom mooy li ñuy wax jigéen jox baax même su fekkee dañ nit moo des timis jot su boobu noonu bokku ci koor gi mel ni mënul oor kon su boobaa dagg na dafay su boobu noonu waaye du kafaar ci la yem jigéen nga xam ne dafa amoon doom ci biir bu amoon yem ba nga xam ne ni benn wax moo des benn benn minute moo des sax jant so te soowagut mu daal di wasin su boobaa itam bis boobu noonu bokk ci nga xam ne mooy koor gi dafay dafay dagg léegi nag dagg na koor yi ci ki nga xam ne dafa amoon ngànt mooy dafa amoon rëkk su fekkee te dafa amoon rëkk muy dina réglam waaye dafa dagg rek fajar jot maanaam bi muy dagg ak diggante fajar bi ci dagg li ci dagg ci nekk mësu tax ñaari minute su boobaa mën naa yéene foofu tamit daal di wóor su xëyee daal di sang ki amoon si la même chose bu fekkee ne fekk ko fa taragalu ci doom ji loolu mën naa am solo ci yéen jamono jooju. ki la wax sax yaa Aysa dafa wax ne daanañ fekk ci biir mu ne dagg leen koor suñu paree mu ne ñu fay leen julli koor gi waaye bu leen fay julli jàngee ci kon ñoom danañ fay waaye daawuñu ko faar fay julli fay koor waaye julli yàlla ci boppam moo ko def ci xikmatum boppam moom moo wax ne nañ fay loolu te bàyyi leen ko jég euh, wax nañ ne ci xëy na bokk na ci julli nekk loo xam ne juróom yoon te wu ci dama nekk kii di am ngant di ko fay mën naa nekk jafe ci moom te yàlla bëggu xeet yu mu daal di teggi leen loola koor gi nga xam ne mu nañ ko fay am mbër su daggee dana dagg fay waaye du ko mooy mooy masturbé koy wax maanaam ku fayee boppam di bànneex ci ay cëram ba ni yu génn ci moom kooku korom yàqu léegi nag ñoom nee ci génnee man yu boobu bànneex boppam boobu dana fay waaye du faa loolu la ñu wax moom mooy fooy boppam ba mën yu génn waaye génn ak mën yu rek lañu wax boobaa borom day fay lu dul nga xam ne ni maanaam dafa tëddoon di nelaw su fekkee dafa génn mën yu génn ci moom su jugee dana sangu mën pour mujj wàññi koor gi yàquwut la ko dale nga xam ne mën yu génn na ci moom mais génnewut bànneex mooy lan liñ xam ci bànneex yu génne mën yu mooy kii am doo xam ne ni bànneex si jigéen wala lu jëm ci loola mais su fekkee ne jiit da koo fet wala boog jaan matt ko da nga tàngoo ko mëni gën ci moom mëni woo gën gën ci bànneex mbaa mu tiit wala daanu ba ci wax ne ko at tepp li ñuy wax saw lay doon borom lay raxas da dem ji waaye sangu sax du ko war waxuma laa muy yàpp nga xam ne ko ba fay di ko ci bi ci ñuy rafetlu niya rafetlu niya lan moom mooy kii dafa yéene woon ne daa woor yàgg mu yéene dafay dagg yéene d'accord soo demee ci euh, fuqaay dañuy wax ne rafetlu niya saadaani yufsiduhuma rafdu wa taani laa yufsiduhuma rafdu loolu lañu wax ñaari yi soo daggee yéene bi yàqu waaye ñaari taa yi boo dundee yéene bi yàqu lan ñaari sax ñaari taxaaratu mooy laab ki jàppoon mbaa mu sangu xam ne sangu farata def wala mu jàpp mooy yëkkatil toj ci moom su ne yéene naa yëkkati toj ci man tamit te deful li war ma yëkkati kooku su boobaa ko kii tawaaf su fekkee dafa tawaaf ba pare daal am yéene ne yàq na tawaaf bi su boobaa su deful li war tawaaf bi yàq yàquwul yëkkati yéene ko dindi kii julli mooy saat bu njëkk bu yéene yéene boobaa yàqu na moo tax tamit ki wax ne yéene woon na woor ba ci digg ba mu ne yéene dagg ndax dafa bokkoon ci fonki koor ko jàngee woon pour koor ko yéene su yéene boobu yàqoon mooy mu jural yàqu aadama mooy lépp luy luy luy waral dagg mu ne fay la waru ci waaye bi ñee ne ci jàppee moom mooy borom ngoo yàqu na ñi nekk nee nañ koor gi yàqu na waaye dana fay te du ko faal lu jàngale beneen bi moom mooy koo xam ni nii dafa jël loo xam ni lu ñuy dagg koor la lu yàq koor waaye nag bi mu koy def dafa jàppoo ne daggan na ci moom exemple lekk na naan bi muy lekk naan dafa jamono jooju noonu daggan na ci moom mu lekk wala daggan na ci moom mu naan mooy ne dafay yeewu xadd bi mu xaddee ba pare xool gis ne julli nañ suba bi muy lekk jàpp na julli suba jotagul woon kon kooku maanaam dafa lekk ci kaw dag jot goo xam ne ni yaakaar na ni lu baax la wala boog dafa ni si jot na gannaaw bu mu lekkee ba pare mu naan xool gis na jant bi soogut su boobaa day jàpp li des ci bés bi ku ni mu ko defee woon ci fàgg itam day jàpp li des ci bés bi ndax du ko tax a dagg waaye nag du def kon boobu dana fay bis boobu beneen yoon nee nañ dana fay waaye du ànd ak léegi nag loolu dañ ne su fekkee koor gi koor ak farata la ndax nañ ko ci leçon bi di passé koor ak farata borom am su fekkee dafa lekk jàpp na fajar jot na su boobaa bu mu xoolee gis na jot na bis boobu nag jàpp mais tere yàpp su lekkee jàpp na gis jot na da bu wóoree ne mis jotaguloo tamit bis boobu noonu da continuer des jàpp ko te dina ko fay mais su dee du ko war a farata nag moom bu dee commencement wala jël benn moom sax ñi bi yéen salaa salaam waxee xadis ne euh, lekk wala nag yàlla moo ko leyal dara waru ko maalikee yi ñoom dañoo wax ne bàkkaar bi la yeneen bi salaa salaam di dàq waaye fay moom foofu ñu def ko mu biir léegi nak liñ doon jang ni yépp dana wax ne rek na wala am lu sa bi wala wacc wala wala gess wala ba mani mu génne jënd wala génne njaax wala ba lek wala naan def li wal euh, yaq koor ngir japp ne maanaam heure bu jogut heure su bëgg passé heure timi passé yooyu noonu dañoo xam ne ki ko def ci kaw taye yëpp tudd ni maanaam dafa waaye du ko faral Shaafi'i ak Hanaabila yi ñoo wax loolu waaye boo demee ñu ne la a di kafaara ñu ne mooy su fekkee ne jimaa dafa am moom mooy ñu wax rapport sexuel góor ànd na ak jigéen wala jigéen ànd na ak góor ñoom ñaar ñu wóoroo ba pare daal di def li ñuy tuddee sëy boobu noonu ci digg ci weeru koor yi nee na boobu noonu day yàq bu pare ko man de aku naa ko lu la mu ne ko da nga soxna ci bëccëg ndax man ngaa goreel daam mu ne ko déedéet man ngaa woor ñaari weer yu toftalaan toog benn su ah ndax man ngaa leer juróom benn fukki miskin nga jox ko mu mu ne déedéet yéen sa wax moom ñu jël ko benn xam xam ne dafa tàndar mu daal di mu ne ma ngi nii mu ne ko jël nga dem sarax ko ni mooy miskin yi mu ne ko diggante ñaari doj yi médit yi gisuma ci lu ñu gën a ñàkk ñu yéen sa ne ko kon demal nga jëfandikoo ko tax xam ne kafaara bi wàcc la ñoom nag ñu ne comme yonent Yàlla sallallahu sallam bi muy wax waxi kafaara waxu ko ci yi des lu dul ci bi waa àndeek boroom euh, soxnaam ci la ko wax kon ànd ak soxna ci bëccëg kooku mooy waral kafaara bu ànd ak fay waaye bu dul moom lépp loo xam ne nii yaa ko boroom dayee waaye du kafaara ñoom loolu lañ déggee xadis bi jàngale ko noonu wax ne sax ci ànd gi ñu fekkee góor dafa ànd ak jigéen ci bëccëg weeru koor ñoom ñaar ñëpp forcé wule nekkuñoon itam ci kaw njuumte maanaam ñoo ko def seen cawla bopp maanaam ñoom ñëpp la xaaj ku nekk da nga wax dëgg euh, fay ba pare kafaara ñooñu nag su fekkee forcé dafa am maanaam am na ku ñëw ne leen ngeen ànd yéen ñaar ci bëccëg bi yoru koor bi nii wala nga xam ne bu ngeen ko defut ma rey leen ñoom ñaar ñu daal di ànd ñu ne su boobaa den waaye nag ki nga xam ne forcé moom kafaara ga war beneen bi mooy ne su fekkee ni góor gi moo forcé jigéen loolu sax moo gën a bëri li mu am moom la ñu waxoon ñu dañu su boobaa góor gi ci boppam moom mooy kafaar waaye ndaw si du kafaar wala nga xam ne ni góor gi muy ànd ndaw si ndaw si moom nekkutoon koo xam ne ni ku wóor la exemple mën naa am ku mën a ñib si bëccëg ba des wala boog nga xam ne ni ngantam jeex te bëccëg ba jeexagutoon wala yi ni mel te euh, yéen pour war a jàppaat su boobaa moom la su dara waru waaye góor nga ànd ak moom dañuy wax ne moom day day kafaara jamono jooju moom la ko góor euh, léegi nag man nga wax ne booba ñoom ba ñu joxe masaali masaala yu mel nii góor a forcé jigéen di ànd ak moom waaye fu nekk su dee jamono jooju jigéen forcé na góor ba mu ànd ak moom kon su boobaa góor ci boppam euh, ñu def xare bi da koy ndax ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innul imaan la yàlla waxoon ci la ñuy xaraj ci moom subaa day jël góor ak jigéen ndax comme jigéen ñi léegi wëtiku nañ bay sàkk góor ñi su boobaa buñ forcé góor ga góor ga mën naa waaj kafaara jigéen ji lay war lii nag buñ ko jëlee boolante ba mu maalik yooyu ñoom ñoo wax ne lépp loo xam ne nit ki def na ko muy yàqu koor su dee ci kaw njuumte la wala nga forcé wala fàtte comme ni ñu ko jàngee woon su boobaa ñoom ci baabu buntu euh, li ñu tuddee sabzaria dañuy fayloo waa ji waaye duñ ko faal bépp luy yàqu koor su fekkee ne koo def te ci kanam njuumte la defee maanaam tayuñ ko ñoom nee nañ ko ko da fay waaye duñ ko faal xadis la mu waxoon lekk wala mu naan yàlla moo la lekk wala moo la ndal na nga continuer sa koor xam ne dara waru la am ñu jàpp mooy saare xanaa bi ñu ne mel ci lañ jël kon kooku fekkoor sax ko malak kafaara maalik ne yeneen bi muy wax loolu li ñu am ci ki nga xam ne ni dafa fàtte juum def waaye nag comme ko waxoon ne ko koor da cee bokk ñàkk naan te waxtu bëccëg bi jeexagut dama dégg ba rek kon su boobaa moom dana fay bis boobu ñoom loolu ci usul fiq bu jàng di addil la mooy dalil yi ñuy toog daf ci am yoo xam ne muttafaq alayha la am yoo xam ne muxtalaf fiha la li ñuy tudd muttafaq alayha mooy dalil xam ne xëy na rek ñëpp ci d'accord alxuraan su la ñuy wax xadis su fekkee moo ñëw tër waaw la ñuy wax ñaar gisuñu leen mais am nañu tuddee xiyaas mooy natt nañ ci ñaar yi ñi ñoo bokk àtte même su fekkee bii ko

jël lu ñu ooy al ijma ijma moom mooy mujtahidul umma ñi nga xam ne ay xam lañ ci xeet wi fii asri min suuf ci benn jamono ñoom ñu bokk daje ci benn masala ni da alquran indiwu ko xadis indiwu ko amuñ ay bu ñu ko mën a xiyaase waaye xoolee ci njàngaleen lislaam alquran ak xadis ak sunna li ciy gis mooy mën nañ ko jox atte ba ñoom ñu ci d'accord su masala boobu la ñu tuddee léegi nag ñeenti yoon su rooti aada ñu ko ànd xeex ak imaam ñu ko muttafax kenn du ci waaye nag su fekkee dafa am euh, addina muxtalaf fiha mooy ñenn ñi dañoo wax ne d'accord nañ ci lay dalil bi am yoon d'accord nañ ci lay dalil bi su ooyee muxtalaf bokk na ci loolu luñ tudde al istisxaab ak baqaa u ma kaana ala ma kaana wala charu waaw dañu wax ne ñi ñuy jiitu ci ay yéen seen àtte dafay nekk suñu àtte tànk suñu wàcc xam naa sabab la naa maa ngi suñu àlla taxrim yi loolu lañ doon wax wala benn de wàcc suñu de ay góor de mujj bokk na ci li ñu tuddee adilla musalafiya bu ñuy ooyee saddu dariya wala boog amalu saxaabi wala amalu amalu saxaabi ñëpp daaw ci parce que dañuy wax kon jëf jooju nekkul lu ñëpp di wax amalaata diine mooy ñuy wax ne yéen itam amalaat la diine la nekkoon kon mooy li gën a bëri ñu wax di ñuy am ñu ne mën na def lu kon su boobaa ñu d'accord ne lépp day ñëw loolu loo waral maanaam am d'accord ci bi am d'accord ci bokkoon na ci aay yooyu nag lu ñu wax saddu zaria saddu zaria mooy mbir mi aayewuñ ko waaye la muy yóbbu suñ ko bàyyiwut mooy ñaaw ñu far ay misaal mi a gàtt mooy de su fekkee ne da ngaa bañ bu jigéen ànd ak góor ba ba loola nara sax mu ne nekk mën naa am sax lu nekk ci loxo soo joxewul loxo da ngaa bañ joxe leneen bul xool boo gëmmee mën ngaa bañ a leneen yu mel noonu misaal la ci léegi nag Malick dañu bëri lu ñuy jël dañoo wax suñu bàyyi nit ñi ñu def nangam rek su boobaa dañu di ci ñoom moo ñoom dëgg loolu la wax masala yi su ne dafa lu def sa tayu su am problème na fay kese ñoom ñoo indi noonu su fekkee lu mu tey la ñooy def fekk kon ku lekk wala nga naan da ngay fay da ngay koo xam ni da nga ah, nu tudd wàccu te yaa ko tey nga fa mbër ak desin moom ñu jàppal naa dëgg bu mu doon nekkee moo génn moo xam xalaat la nekk moom génn ci moom su boobaa ñu ne ko itam dafay fay dafay kafaar masi yi ko génn ci moom nee nañ su dee ci bànneex ñom daal yépp d'accord nañ ci né ku ko tey da nga fay kafaara ba dess mané yu mi ci wax ne dafa génn ci lu neex wala nga xamé ni manam dafa génn ci lu neex mba nga xamé ni dafa génn ci saan su boobaa borom mo mo lu bànneex rek borom da lay du kuy kafaara wala nga xamné ci génn la ko jëlé ñom dañu né ba kafaara di am ci wéru ko liñ masal yi di ñu dañoo wax ne ni kii dagg lim dagg na fekk ci weeru koor la def waaye su fekkee dafa def lim def te nekkul ci biir weeru koor su fekkoon dañ fay mu li muy woor wala geneen woor su baax dana ko fay waaye du ko faar bo foofu mu nekk ci biir weeru koor benn ñaareel bi mooy li def muy lekk wala naan ci biir weeru koor yi na nekk loo xam ne du juumte wala fàtte moo ko loo su boobaa kon dafay fay wa tey day faat mooy te amul ñetteel bi moom mooy ne nekk bi dul ikra mooy ixtiyaar waa ji mu am volonté boppam mais su mu def léegi wala naan gi su boobaa itam dana fay dana ko faar ñoom noonu la ñu ci ay charte bi ci des moom mooy li xam la daggee ko am fekk gémmiñam la jaar su fekkee ne daa jaar ci ay bëtam wala mu jaar ci kanam comme sama document si ba ñu bëgg dañuy wax ne dana euh, yàq loolu waaye du fay euh, du kafaar beneen bi mooy na fekk egsi na itam ci biiram bi waaye su fekkee mooy ci puto bi mu génne waat ko te jàllut su boobaa itam du waral li nga xam ne mooy kafaar biñ ci euh, mujjee ñoom moom na xam ni maanaam ormaay koor gi ak alal ci lislaam bees xam nga ne loolu dafa xaraam mu dem jëfandikoo su boobaa danañ ko wax ne ko lii dafa xaram dafay wala koor gi yàqu kon dana ko fay waaye du kafaara ndax lim nekk bees bees moo tax mais koo xam ne su boobaa day fay day kafaara bi ci mujj mooy lu ñuy yoxee tawi xam ne naam du dafa seene ormaay koor gi waaye dafa lu ñuy ooyee tawil su fekkee nag maanaam tawil bi génn na ci moom du tawil xarit du tawil bàyyi mu dem def li waral koor gu yàqu ko tamit dafay fay dafay kafaara la may taawil xel taawilul xel taawilul xel moom mooy kii ci njortam ci la jàpp ne lii nii baax na te fekk na am na lu tax mu def ko waaye kenn moom li tax mu def li mu def daf koo njort yoo xam ne ni taxawul ki njortu ci lu taxaw kooku dañuy wax ne ba sama taawil xel la kooku du fay ah, day ki nga xam ne koku mom day fay day ka ñom lolu lañ wax lan moy xay bay bi ci misaal mooy ko xam dañ ko forcer na ko dogal mu dog ñu ko dem mom mu japp na ko tag na rek le japp na mu war ko di lek koku li def lim tek a lekkam wala adem dogam mo lekk yi am baba wala bok da doon ki ñu koy tu man nga dag fam jëm sori lol mu ak yaakaar ne man masa bu baax ñu war a wàññi war a ndeke yëf matu ko fekk boobu noonu daggoon na ba pare su boobaa kooku dana fay waaye dafa lu war loolu moom mooy lim teg ànd tut mi am na waaye lam jàppoon ne mooy masa bu mu manqué wax soo nañ ne it ne wax sama yaakaar naa moom mooy nekk euh, masa quatre-vingts kilomètres daal toll wala soixante douze war nga am na wàññi koor léegi koor léegi su fekkee mu jàppoon nag ne mat na matut su boobaa lim taawi xarib lañ koy woowe kooku mën naa saa yu la buñ bu ñu essayé ci weer yi bés rek feebar dana ko dal léegi nag mu mën a suma doo war mu ne bés bi ci laa daan feebar kooku taawilul baid lañ koy wax nee na même feebar bés ba sax dana fay boobu noonu dana ko kafara ndax ñu teg amagulu jigéen joo xam ne ni daan baax ci weer wi jamono ñu nekk suba du ma woor lu tax wala sama ngànt di ñëw nee nañ même su mbaaxam ñëwee sax bés boobu ko fay dana ko faral ndax wóoru ko ndax dana amam du am kooku lañ koy tawil waay léegi nag ki nga xam ne nag dafa dagg weeru koor nekk kii nekkul këne def ci benn tawil maanaam moom moo door a daggal boppam kooku dañuy wax ne kon ci gàttal ñu tënk la bi mooy màgge yi ñoom nee lépp lu yàq koor su ko borom tayee loo xam ne day yàq su boobaa day fay day kafaara ba mu des euh, euh, lu dul loo xam ne maanaam lépp loo xam ne day koor te borom tey su boobaa mën naa fay waaye du kafaara yi yàq koor nag moo ni ko waxee lekk wala naan wala mbaax wala boo gërësin mbaax mooy règle bu dab borom wala gërëti wasin su jigéen amee doom naa même bu ko benn bu ko benn desoon bis boobu wala boog li nga xam ne moom mooy raftu ni yéen ñoo ne woon dina mu lekk wala jot na wala boo su boobaa itam yàqu na yàqu wala boo nga xam ne lii yàlla dafa yaar ci bakkanam wala mu jaar ci bëtam dugg ci biiram su boobaa dañoo wax ne yàq yi ñu tudd nii yëpp nag dañoo wax ne magie ay chab dañoo wax na wax mais maalike yi lépp luy yàqu koor rek su borom tayee maanaam ko yàqu na ñeneen ñoom dañoo wax ne jima mooy si ab rapport moom la xaalis ba waxoon waa ji mu kafaara moom ñu tëkk foofu mais Maliki yi am na benn boo xam ne ni yéen sallallahu alayhi wasallam dafa indi baatab muslim moom mooy baatab iftaar mooy dagg am na góor gu dagg koram ci weeru koor yéen si allah sallallahu alayhi wasallam digal ko ne ko na def ko jaam wala mu woo ñaari wala mu def leer juróom bi fukki ku nekk benn mudd ñoom ñu ne comme ba dagg lañ indi woon foofa kon ku daggati fii rek daa koy da ngay mën di duggaale ci àtte boobu ñoom loolu lañu wax léegi nag ñoom ci àtte yi ñu tëral pour nit ki war kafaara mooy ne dagg gi mu ci biir weer koor lay nekk ki ko def moo ko wu te xamoon na xaraam te nekku bitaa yu te jaar yem ñam te li nga xam ne ni moom mooy biiram lu dut yii nii nii nii dagg ci biir weeru koor su fekkee dagg na lam dagg na dana ko fayloo bés ba nga xam ne ni moom la daggoon waaye du kafaara kafaara nag mooy nga xam ne moom yàlla mu mën a teggi pen bi nga xam ne ni moom mooy fay fay moom bi sa boppam la ak ñaar mi nga fay xam ne moom nga dagg kii gis mbaax wala mu gis rek fanam ya rek la ñuy continuer fay ko wala mu feewoon tukki mais ki nga xam ne dafa war a kafaara ko ñi li yeneen ñu wax ku ko sa tey ko su boobaa ñaari weer lay compte weer wi nag moom mooy su fekkee ne weer génn la ba weer di dee booba loolu lay fay ci kafaara dañuy toxtalante bu ko daggee am na sax ñu su ngànt mu dagg dafa koy commencé su ko daggee sax juróom benn fukki fan ne toxtaloo ci weeru ci ci oor su boobaa dafa koy commencé ci gàll loolu mooy li nga xam ne moom lañu doon pour leçon bi li ci leer yàlla lu ci leen dem ñun ñu ne ñaan yàlla mu jégal ñu ko te lu ci sawab mu boole ñu yàlla ñu ne